sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka farjekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jàkkaarlooñ ci duñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di ñaanal sëriñ ahmadul muxtaar xalifa cheikh mohamadul moustapha mu yàgg fi loolu ànd ak wér ak mbooleem njaboot ak cheikh mohamadul moustapha gépp yi ci ndigal ak kilifteefug diwaanul muridina di daayira bi nga xam ni moo lëkkale mbooleem kër cheikh mohamadul moustapha gépp ñoo am mbégte tey kontaan di leen nuyu di leen ziar ci wàccaayu màggal gi nga xamante ni mooy bés bi seexul xaddim fanaanse woon ci dëkk bu sell bi di Touba ca seex Moustapha wootoon bis bi taxawu ko sëriñ Ahmadou Muxtaar woote ko looloo tax nag ngir yokk ak yaatal euh, intig bu diwaanul muridina àndante ak seex si tey nag ñu teew ci kenn ci kër njaboot ak ñi nga xamante ni ñooy njaboot ak sëriñ Daaru Asan sëriñ Daaru Asan soo ko waxee xel dem ci seexul xadim waaye tam sëriñ Daaru Asan soo ko waxee xel dem ci biir ëtt bi ñu nekk di ëttub daarul xuddus moo tax nag tey ñu fas yéene ànd ki nga xam moo yor seen kàddu di jëwriñu kër gi di sëriñ Cheikh Ibra Jëmb Ndiaye ñuy ñaan yàlla dooli ko tawféex bu baax ba mbooleem ay naalam ak sumba mu eggale ko defe nu kawe njortam na ay magam top ay way juram di liggéey liggéey bu set ci seen ginnaaw yàlla na ko fi yàlla bàyyi ci yàggal ko fi moo tax tey bi nga xamante ne moom la ñu ñaari rek lay doon ak tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci tënk ñaareelu tomb itam dinañu waxtaane njaboot ak sëñ daaru asan gi nga xam ñoo fi wutu sëñ daaru asan seen diggante ak kër gii di kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ñetteelu tomb bi nag waxtaane euh, wàccaayu màggal gi waa kër sëñ daaru asan nan lañ koy defee waaye itam soññee ji ma ci taalibe yi nga xamante ñu ngi ci àdduna si wërngal këpp ca ñuy bàyyi xel fu ñu mën di nekk ñoom itam seen taxawaay ak seen war ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom la ñuy defal Cheikh Mouhamadul Moustapha ndax kër sëñ daaru asan ca kanam rek leen mas xool benn saa su nekk fa leen mas di gis ya kana ku am jëwriñ jo xam ci kanam la nek yow may talib woro waroo yokkat waroo deltu gannaaw ci kanam rek nga war jëm kon seigne Cheikh ibrahim jox la cadeau gi bisimilah. julli di bokk taali bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh euh, ñi ngi leen di nuyu fi ci kër gu sel gu tedd gi gi nga xam modi darul qudus Cheikh Ahmaduna Ahmadul khadim sanchon ko tudde ko tur yi nekk fi am diir mën nañ ni sax waajtaayu géej gi yoonu géej gi fii la ko defee ah, waajal ko fi ba am ndigalul jóge fi dem Mbàkke Bari soog faa jóge dem ci liggéey bu màgg boobu yi ni ko sëriñ Moussa waxe rek ah, nu dikk tey nag ngir di <coughs> waxtaane waajtaayu bis boobu di bis seex seexuna ahmad al xadim bi nga xam ni ci la ñëw wala guddi gi nga xam ni ci la ñëw fii ci jumaa ji fii mu ne ci jumaa ji ci taxawaayu seex muhammadul mustapha taawam bi ko fi jëkk a wuuti di taalibeem waaye ci ndigalul seexuna ahmad al xadim loo xam ne moo ko ko joxoon saa bu demee ba nekkatu fi ñu andi ko fii di dëkkam bi mu sancoon gën koo bëgg sàkk woon ko ci suñu boom di ko ñaan ba suñu boom jox ko ko waaye nag suñu boom nattoo ko xañ ko mu dëkk fii lu dul ba mu ko sancee diir bu néew rek tërbiya fii ay mag te sëñ Darou Assane mii ñuy waxtaane bokk na ci ñi nga xam ne bokk na ci tërbiya yu jëkk yooyee kon li nga sak ñu waxtaan ko ci diggante sëñ Darou Assane ak Cheikhuna Ahmadul Xadim Ah, sëñ Darou Assane bokk na ci ñi jëkk a jëkk a topp Cheikhuna Ahmadul Xadim ndax bi Cheikhuna Ahmadul Xadim di woote woote bii daa fekk mu nekk ak moom di donga boo xam ne daa nekk ci daaraam mu di ko jàngal gannaaw ba fi way juróom maam Mor Anta Sali jógee ñu bokkoon fa ne sëñ Darou Assane wéyal ak kilifteefam ci sëñ bi ci diggante sëriñ buy jàngale ak donga buy sàkku xam-xam ba yàlla dogal ndigil li jóge ci suñu borom jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci seexal xadim te mooy mu woote nag yoonu murit ak doxin bi ñuy dox bañ a yem rek ci sàkku xam-xam waaye am yittew jëm ci suñu borom tabaraka wa taala ba lépp lu lay taxa jëm ci suñu borom nga yittewoo loola lu lay tee jëm ci suñu borom wala mu di la yeexal sab dox nga gannaawal loola kon loola mooy woote boobu Cheikhuna Ahmadul Xadim woote sëñ Daaru Asan bokk ca ña jëkk a wuyu wax nañ ni ñii wax nañ ni mooy ñeenteel ñii ni mooy juróomeel am na sax ñu wax ba juróom-benneel waaye lu saman di xew Seexuna Ahmadal Basir moom nee na daal sëñ Daaru Asan bokk na ci ñi jëkk jëkk a topp sëñ am naa dund naa ak moom lu mat ñeen fukki at loolu la Seexuna Ahmadal Basir bind ci téeréem Minanul Baaqil Qadim waaw ah, sëñ Asan ànd moom ci noonu àndeen wu rafet ba ba muy jógee euh, ba muy jógee Mbàkke Kajoor ba ni mu ñëwee mbake Bawal ba ni mu ñëwee Daaru ba ni mu ñëwee Tuubaa lépp sëñ Daaru Asan mi ngi ànd ak moom ba ci yetti daara wala yent yi nga xam ni moom dafi sëñ bi jëkk a samp ci Tuubaa ñu wër Tuubaa ji nekk sow ji nekk penku ji nekk gànnaar ji nekk Saalum sëñ Daaru Asan ca daara yooya la woon ah gannaaw bi nga xamee ni nag sunu borom dogal na sëñ bi it am liggéey bu mu ko doon liggéeyloo ci wattaayu géej gi bu siiw a siiw ñu wax ni defloo na ko xalwatu ñu wax it ni jiite na sax fii ci jàkka ji ci biti sëñ Touba ndax booba sëñ bi day def nekk li atikaaf waxtu julli jot sëñ bi santoon ko moom sëñ daal san mu jiite ko kon loolu lépp diggam ak sëñ Touba ah, ci la xew Ah, sëñ Darou Assane ànd ak sëñ ci ay ndigalam ak di moytu ay tereem sëñ Touba it tegoon ko fu kawe ndax daa doonoon nit ku sell ku dëggal ku am te nangoo jaamu yàlla te di ko def ngir yàlla rek tax te kenn ku ne xam na ne sëñ Touba ku mel noonu dalay fonk kon mboolem kàngam yi nga xam ne àndoon nag sëñ Touba ah, nangu nañ ni sëñ Darou Assane moom ku jege woon sëñ la. ku amoon ci moom ab cër la ku amoon ci moom wàccuwaay la seen Tuubaa yi daana junju mel ni day jubloo wax ni képp koo xam ne daal dangay soxla di wut royukaay na nga xool sëñ Daaru Asan mi ndax xay na sëñ bi àgg na foofu ah, ñu bari eh, dañuy jàpp ni sax mënee su ko roy ndax fi ko yàlla teg ak fa ko yàlla yóbbu ci kawe ci ay jikko ak lu mu doon tax na ñëpp jotiwuñ jotiwuñ fa wala kenn sax jotiwu fa waaye nag sëñ Darou Assane doon ci ñi nga xam ne dañoo nekk ci ronam te mënee sa xool ci moom man cee roye ci moom mën a ànd ak moom ba mu yóbbu la ci suñ borom tabaaraka wa taala kon loolu bokk na ci junj yi nga xam ne sëñ bi daana ko junju kon diggam ak eh, sëñ Touba ci gàttal noonu la demee mu nekk ak moom ba ci 1924 suñu borom wàcce ko liggéey moom sëñ Darou Assane kon moo fi bàyyi sëriñ bi Euh, ñetti at moo jiitu sëñ bi euh, bi muy waaja a wàccub liggéey wax nañ ni jëlee nañ ci mag ñi ni yónnee na ci sëñ Tuubaa loola nag fekk na moom mu jóge ci sëñ bi ba dellu njàmbur ba sanc fa ay dëkk ba dëkk bi mu mujj sanc ñu di ko wax Tuubaa Njaay boobee nag bi mu demee ba nga xam ni ab digam jege si na yónnee na ci sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñu fekk ko njëriñam di ko xamal ni sëñ Daaru Asan nee na kat daa mel ni ku a ngi jot te diggante tëkkusaan ak timis sorewul mu bëgg a xam bu sun borom soppee jamono fu muy doon maanaam fu ñu koy denc ndax dañ koy denc foofee ca Touba Ndiaye wala feneen fu ñu koy denc ndax booba fekk na am na ay mag yu wàcc ci jamono yi sëñ Touba sëñ Touba digle ñu denc leen ca seen dëkk yañ nekkoon doon fa liggéeyal sëñ Touba xëy na kon loolu la sëñ dër doon leerlu mag ñoo ko nettali nee na ba ndaw la demee wax ko sëñ Touba radiyallahu anhu ca njëriñ sëñ Touba da ko tontu ni boo demee nee ko moom day fu mu nekk suñ borom dana ko añal waaye nag maa ngi moom Touba rek kon loolu mooy sababus ba mu wàcceeb liggéey ñu andi ko Touba fii ci barab yi fañ doon wax guy texe sëñ bi dig la ñu denc ko fi sëñ bu so mi nga xam ne moo daa taxawu kilifa yi taxawu ko kon diggam ak digg sëñ Touba ak sëñ Dëru ci gàttal noonu la demee Ah, di lu gàtt lu ëmb lu bëree bëri waaw ah, gannaaw nag sëñ Darou li nga ci teg muy diggante njabootu sëñ Darou Assane ak sëñ Touba ak sëñ ak Cheikh Mouhamadou ak njabootu sëñ Touba radiyallahu anhu ginnaaw bi fi sëñ Darou Assane jógee kon njabootu sëñ Darou dem nañ ci Cheikhuna Ahmad al Khadim feddiliku seenu njébbal ah, feddili seen kóllëre gi nga xam ne. sëñ Daaru fasal na ko diggam ak sëriñ bi ñu am feek sëñ bi ñetti at sëñ bi wàccub léggéey sëñ Tuubaa wuy ji boroomam tabaaraka wa taala ah ba mu wujjee boroomam nag kon ki nga xam ni moo jëkk a wuutu ah Daaru Asan ci mbooloo mi mooy ku ñuy wax sëriñ Fallu Njaay moo jëkk a wuutu mbooloo mi toppoon sëñ Daaru topp ko mboolem lu Seex Moodu Mustafaa daa santaane moom la koy sant xam ngeen ni loola moo taseeg liggéeyu jumaa ji taseeg lii ñuy wax tey di bis bii ñu jublu yooyu yëpp bokk ci yi nga xam ne Cheikh Modou Moustapha moo ko digle moo ko fi taxawal àndoon koog taalibe yi ab diir ba sun boom jë jëlee ko fi loola booba njabootu sëñ Darou Assane ki ci mag mooy sëñ Fallou Ndiaye kon moo nekkoon ci carrière bi bu dee wàllu gas raay beeg mboolem liggéey yi nga xam ne rek Cheikh Modou Moustapha doon na ko fi liggéey kon sëñ Fallou Ndiaye moo jiite woon njabootuk sëñ Daaru Asan ak taalibe yi sëñ Daaru Asan ci ndigalul magam booba nag sëñ Abdou Fatim Baalo mu ngi fi moo ko mag sëñ bee ko yarit waaye moom sëñ Daaru daf ko féetale woon njàmbur joxoon ko ndigal ba moom foofa rek la féete woon sëñ Fallu Njaay nag moo gàddaayoon ànd ak mboolem rakkam yi ci des ñu fekk si Cheikh Modou Moustapha fii ci Touba ak li tuuba Touba Cheikh Modou Moustapha digal leen ñu sanc fi ay dëkk yu limu de ànd ak mbooloo mi ànd ak dongay tërbiya di bay ay toal di bay tool yi àllarba di ko jébbal Cheikh Modou Moustapha mu ko def mu diko def ci liggéeyu seigne Touba te boba la ci gëna fess moy mooy ji ak taxawal bis bu mel ni nga xamne mom la Cheikh Modou Moustapha wote won te moy guddi giñ ñu indee Sëñ Touba ci Touba tasek Ashrina Muharram seigne Fallou ndjay momu yàggu fi gënaaw seigne dal asal moom tam ci khilafa gi yàlla dogal mu wàcc bu liggéey xeyna na dana toll 1936 1937 sëñ Bay Falloo wuutu ko fi moom itam gannaaw euh, ba mu wàcceeb liggéey sëñ Modou Moustapha teg ko place mu toog wuutu ko jiite mbooloo mi ak taalibe yi ak bokk yi na ko sëñ Fallou Ndiaye jiite woon loola it euh, ba tey fekk na liggéeyu jumaa ji mi ngi fi kon lu jëm ci liggéeyu jumaa ji nag fu ñu ko mas di defee moo xam ca carrière ba la moo xam gas suuf la moo xam lu rek booba sëñ bay Fallou booba moom itam mi ngi ci gannaaw Cheikh Modou Moustapha ànd koog taalibe yi ak rakk yi ak bokk yi ak euh, soppe yi yëpp. Mm-hmm. Ah, noonu la toflantee toflantee ba ci sëñ Ousmane Ndiaye moom itam moo fi wutu sëñ bay Fallou moom itam liggéey fi liggéey bu rëy fa tabarakallah ah, naka noonu ah, sëñ Mouhamadou Ndiaye Assane sëñ Abdourahman noonu la doxee ba ci sëñ Mbacke Awa doon ab sët moom ci sëñ Darou Assane. te kër gi xam ko lool macha allah mu amoon fi taxawaay ba ci sëñ Cheikh Fassila Ndiaye ba ci sëñ Bakka Fassila ba ci ki ñuy wax sëñ Abdou Khadir di doomi sëñ Ousmane moomu jamono yii nu toog di waxtaan tey mooy xalifa sëñ Darou Assane waaw su ko defee it liggéeyu sëñ Darou Assane ak njabootam ci gannaaw Cheikh Modou Moustapha moom itam di lu am solo te barab bii nu toog tey di waxtaan wala kër gi nu toog di ci seede ndax fii nga fii nu toog tey di waxtaan muy bâtiment bii nu toog ah surtout sëñ Darou Assane di sëñ Cheikh Mariamou Ndiaye di surtout bi Cheikh Modou Moustapha ndax soxna Mariamou mii woy juróom mooy taawu Cheikh Modou Moustapha sëñ Bay Fallou di way juróom moom itam di doomi sëñ Darou Assane sëñ Cheikh Mariamou moomu yal na yàlla dolli leeram ak ndimbalam ak suturaam gën koo yëkkatil ay daraja te taas na ci barkeem kër gii nu nekk mu liggéey fi liggéey yu takkoo takku waaye nag fii di benn misaal fii moo ko yoon ci jamono yi sëñ Mbàkke Madina booba sëñ Mbàkke Madina mooy xalifab sëñ ah, Cheikh Mouhamadoul Moustapha noona la doon wéyee la moom itam ay liggéeyam moom sëñ Cheikh Mouhamadou Yemou ci képp ku fi nekkal Cheikh Mouhamadoul Moustapha mu ànd ak bokk yi di liggéey waaye liggéeyam nag gën a fese ci kër gi boo doon wër dana néew loo gis ci kër gi mu taxaw te loxob sëñ Cheikh Mouhamadou Yemou dugg ca mm. waaw muy li fii nu nekk ak mbaar meenu jàkkaarloog fépp rek fee fee gaal ya nekk ak mm-hmm. ah, néeg bee ca gaak fépp rek ndax am na ci lool man mii maa doonoon jëwriñ ja di ko taxaw ci mu jëm ba bi muy wàccum liggéey loolu liggéey boobu ci sama loxo la ne kon li ma ci wax xam naa ci dara kon fii nu nekk misaal la ci diggante njabootuk sëñ Darou Assane sëti ah, ak ak ak njabootuk Cheikh Mamadou Moussa ak sëti Cheikh Cheikhuna Ahmad al Khadim di njabootuk Cheikh Mamadou Moustapha radiyallahu anhu kon daal mbir mi euh, noonu la doxee liggéey di toftaloo xëy na nag fii may wax beesalaat nañ ko gennaaw bi bi ko sëñ Cheikh Marie mu defaree ci jamonoy sëñ Mbàkke Madina bin demee ba ci mujjug sëñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye xiiwal njabootug sëñ Darou Assane gépp ñoo àndaat beesal beesalaat bâtiment bi tabaxaatuñ ko daane wuñ ko tabaxaat ko waaye booba daa fekk dal ba ca kaw am sik maa ngi xool léegi plafond bi di yéemu ndax toj nañ ca kaw yëngu bi ñu doon yëngu ca kaw di defaraat di dajji ba defaraat côté plafond bi dara sikku ci mel nii mu meloon léegi moo xoolee rek moo toogee rek moom laa sigg di ko xool di ci yéemu fii lii it maa doonoon jëwriñ ji xaalis bañ ko doon liggéey ak taxawaay ba lépp man mii maa ko yoroon kon diggante ah, sëñ Darou Assane li nga doon laaj ak Cheikhouna Ahmadou Khadim waaye diggante njabootuk sëñ Darou Assane ak njabootuk Cheikhouna ah, Ahmadou Khadim ah, ba ci sët yi noonu ba ci sëti sëñ Darou Assane ak sëti ah, Seexuna Ahmadu Xadim noonu la tëddee waajtaayu màggal gi naka jekk rek eh, mosu fee jóg nii la mos di demee ca mag ña noonu ma ko tuddee ci sëñ Fallu Njaay ba ci sëñ Bay Falloo ba ci ñooñ ñu tege noonu demee xëy na nag jamono mooy soppiku ba am ci yooyu day soppiku ndax eh, ca jamono yooye yu jëkk ya lépp rek kattana ko daa def mm-hmm. amul lenn loo xam ne man nga ne xaalis a ko daa def lu dul lu ñuy jënd waaye leneen lu mu booba yombul jegewul kàtt na koy def mhm. booba tax na dongay tërbiye it bu bis bii di jub kilifa yi dinañ ñëw ànd ñoom booba ñax mi day bari nii nga xam ni ni la taxawaay yi mate léegi ah, jumtukaay yi yombe ni booba bu ñu àggee ci waxtu wii te fekk muy nawet day mel ni booba it àll bi dafay jege booba dëkk bi demeewul nii kër yi yaatuwul àll bi dafay jege ñax mi day daal sax fépp jege fépp te booba ab àll la ay jaan lu ne mën na fee ne su ko defee nag bu màggal gi jub dongay tër bi ñëw kilifa yi jiitu ñu setal bay radu jël yóbbu fa sori taal ba mu set ba nga xam ni li jege dëkk bi day set wecc doo gis dara ba nga xam ni bu guddee xëy na luy raam bay lor kenn du fi mën a agsi boobu foofu la jamono toll waaye booba it ndox yombul ay rootukaay yu néew ñoo fi ne wax naa ko daaw rek yaakaar naa ni lu tollook ñetti ka rootukaay booba moo am kër goo xam ne nag dangay dugg di gis ay robinet man nga ni booba xawula am waaw xiibal yi demewul nii booba fu ne nga dox fa di gis ay waañ wala kër yi nit ñi togg nii ñu koy defee kenn ku ne bëgg aw gan ñëw ba jëfandikoo ko booba jékko wuñ ko noona booba eh, yaakaar naa loolu da ngeen ko fekke boo doxee ci mbedd yi xëy na bu màggal dikkee waa taax yi ñooy ñëw di passion si ñee jóge Dakar ñee jóge Thiès di passion si di taal ci mbedd mi foo jaar ci mbedd mi saxar si di sëlsëli taal yi takk Ah, mbedd yi salte lool ndax yi ñuy tuur ak yeneen léegi nag loolu lépp nag booba daa fekk nag ñaanu sëñ bi xëy na mi ngi ñëw waaye ak seegul ñaanu sëñ bi nag daa waxoon ne wajalhu rabbi min na nan mu ajjala jaalibatan li min na nen mu ajjala yow sun borom maa ngi day ñaan dëkk bii di Tuubaa ba mu ciy ñaan na ko def muy xiiwal goo xam ni day day dikk léegi dañ koy gaawe mu ñëw léegi waaye xiiwal googu yi ñëw léegi nag bu mu nu beewloo na doon xiiwal goog dañ koy xiiwloo ci sa ngërëm ba mën noo jural ëllëg ay xiiwal ca àjjana ak aaxira wajal rabbi mi na nan mu àjjala jaalibatan li mi nan mu àjjala kon nag mel na ni ñaanu sëñ bi agsi na tey yëf yi soppi ko na bu baax a baax bu màggal gi dikkee kenn ku ne yaa ngi ngéeju ay gan ñëw ba nga tëral leen moo Modou Moussa da woon wax ne ci nettali mag ñi radiyallahu anhu génn leen néeg yi bàyyee ko gan ñi loolu kenn waxatu ko léegi fa tabarakallah kër goo dem néeg yaa nga de gàññ kenn xalaatu génn sa néeg ku ñëw man nga ko ni duggal fii te du tee nga mën a nekk sa néeg kon ñaanuk sëñ bi ah, fa tabarakallah arsi na baax a baax xiiwal yi nga xam ne it Cheikh Modou Moustapha daana ko digee dina di ko joxañ ñam àndaloon ñoom ñu defe ni ñoom lay wax waaye fekk sët yi ci seen seeni seeni ndigg lay waxal yooyu it nun agsi na tey kon la sëñ ba wax ca bayit ba ni bare aanakat astem su mujj ñëw ñu won ko loo xam ni ka ko jiitu woon gisu ko nun dal nanu ndax li sëñ bi ñaanu sëñ boobu ma wax ci bayit bi ak li Seex Moodu Mustafaa daa wax mag ñi nun fekk nañ ko teg ci suñu bët dund ko te ñam ko doon wax di suñuy maam fekke wuñ ko wala suñuy wayjur fekke wuñ ko dunduñu ko kon yàlla delloo sinu teg nu ci yoon wa ba xiiwal yi nga xam ne sëñ bee ko ñaan ba mu agsi baawaan wet gune wër nu wet gune ñu jëfandikoo ci ci lu neex sëriñ bi nga xam ne moo ko doon ñaan te la neex sëriñ bi mooy neex la neex boroomam ba mu ko doon ñaan ba mu may ko ko ak yonante bi sallallahu alayhi ba mu ko doon ñaan ci darajaam ba mu may ko ñu ngi sant gërëm di jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah fa tabarakallah jërëjëf sëriñ Cheikh Ibra Jëmb Ndiaye ci Liu yu am solo yoy nga xamanteni ni indil nga ñuko ak soñe gi ak dàggee gi yakarna talib taalibe yëpp mën nañ cee jariñu waye tam kaddu yi jullit yëpp mën nañ jariñu muridina ci njidal Usman Ousmane Mbàkkeem serigne Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma tan lu won la tan kër gu mel non ndax kërug cosaan la go xamanteni ni seen ànd ak seexul xaddiim kun na ci ñett mba ñent ba juroom yi nga xamanteni ñoo ñëk jébul ci seexul xaddim cosaan la ci yoon wi bokku na ci kër yi nga xamni ñoo fondé yoon wi ba ca dess seen ànd ak Cheikh mohammedul mustafa liggéey yi nga wax fi firndel nako ak talibi firndel nako ak benno firndel nako waye tam ni ngeen joxe seen bopp daara xulóos di suñu dara ben firndel nako kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di ndokkel ñaan seigne Abdou Khadir Ndiaye mi nga xam mo nek ci khilafa ak seigne daru azan ne ca bopp ba yàlla guddal fanam yok wéram ba lim bëgg liggéey sëriñ bi yëpp moom itamit mu defe ko nu kawe njortam kon di sant sëriñ Adam suñu caméraman di sant ñëpp di gërëm ñëpp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy see ka farjekki su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate mustawa